teg ci lu ci toll juróom fukki junni ci ay doomu aadama dañ fa ñàkk seen liggéey ñu la ko yéen kaay gii di wàll fu quotidien xëy fësale ab di laas tamit ci fii ci Sénégal yéen kaay gi xëy tey daal si amal ab taxaw seetlu ba tax yëkkat seen kàddu di seex su état bu Sénégal ngir wax ci loolu xëy bi ak it état bi nga xam jamono ji daanaka dafa tàpp topp ginnaaw FMI rek moo koy rëddal yoon bi muy jaar FMI moo sàkk ci moom mu dindi subvention bi nga xam ne moom la doon euh, tegoon ci essence bi gasoil bi nag bokk na ci li nga xam moo tax euh, njëg yi yokku yéen euh, ñu ngi dudd ay jafe yoo xam ne ni daanaka état bu Sénégal deful lu may topp FMI ci ak dictaawam noonu la ko kaay giir critique xëye fësale yéen kaay geneen Sud Quotidien yéen kaay giir Sud xëyee dellu saat ci Amadou Ba miñ na nekkul neexul ba neex waaye candidat boo xam dafa nekk sous pression noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale ndax Euh, gannaaw ba ñu wone ak télé jëmale ko ci cëgu dund bu cher bi la wax tamit ci immigration bi nga xam bis bu yàlla sax dafay gën la ci diwaanu Touba gannaaw boo ko sëriñ bi sàkko waaye administration bu ministère euh, administration bi dañ sàkko ci moom dañoo xamal sëñ ne ko dañoo xamal sëñ bi ne ko diir dafa gàtt maanaam euh, fi euh, de vote la dañ koy euh, nga xam daanaka dafa delluwaat candidat seen dafa maanaam seen ànd noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale moom sëriñ Mountakha Bassirou ne bu ko kenn tudd di ko tudd ci politique moom amul benn candidat boo xam daf lay jàppale ñoom ñëpp lay yemalee euh, euh, dañ koy randal dañ koy toxo amaan dañ ko fay euh, loolu nag dañ ko bëggoon a fan yi waaye finalement dañ gis ne diir dafa xew a gàtt moo tax sëriñ bi kon fas yéene bi nag wax ne ci politiciens yi moom daal la mu ci moom mooy ñu noppal ko moom talul politique yoonam nekkul ci politique la tal daal mooy liggéeyal Sëriñ Tuubaa noonu la ko yéen kaay gi di direct news xëy fës yéen kaay geneen le mandat le mandat xëyee dellusiwaat ci présence bureau de vote ci diwaanu Touba Serigne Mountakha mandat xëy fësale présidentielle 2024 yéen kaay xëy ci élection boo xam ne ni daanaka élection bi bëri enjeu la mandat xëy fësale yéen geneen le quotidien euh, administration pénitentiaire bind nañ ab bataaxal di artu nguuru Sénégal ñu xam ne euh, euh, maa ngi saisir Aïssatou Sall Sall xamal ko ne ko Ousmane wér-gu-yaram fu mu toll nii jéggi na dayoo te waxtu ne lu ne mën na si am ne dem nañ bi fu mu toll nii fièvre mu ngi toll ci 40 degré boole ko tamit da si boole wàccu ak en temps di waxtu waxtu di waxtu sax su ne Euh, yéene kaay gi ne procureur moom li ko si ñor mooy bataaxal boobu le naka lañ def ba presse bi jot ci nee na fu mu toll nii mu ngi ci ubbi ab enquête ngir xam ñan ñoo nekk ci ginnaaw loolu noonu la ko yéene kaay gi di la ko te ñaa xëy fësale euh, réew mi ne Sonko mënatul noonu na fu mu toll euh, kenn ku dul moom noonu la ko yéene kaay di réew mi la fleur démb daanaka dañ ko relaxé ndax motal na ñetti weer yi nga xam teg ci kaw ndodam waaye dañ ko mujj recalé ndax benn procédure judiciaire boo xam dafa tegu ci kaw ndodam euh, noonu la ko yéenekaay gi di euh, yor yor xëy fësale yéenekaay yi geneen source waaw ah, yéenekaay gi di source dellu soit Sénégal yi nga xam ne jamono ji ña nga fële ci Tenerife ci Espagne ñu bari si ñoom daanaka mbëkk nañu gaal yi ba dugg ci réew ma waaye waa Espagne fu mu toll nii ñu nga nekk dina ay pexe ngir dellusiwaat leen fii ci biir réew mi yéen kaay gën a de la défense bu Espagne ñëw na démb fii ci Ndakaaru ma ngay waxtaan ak kilifa yi la mu ci jublu mooy fexe ba ñi nga xam ni ñoom la ñuy teg loxo foofu ci diwaanu euh, foofu foofu foofu si Tenerife te ay sénégalais mm-hmm. ñu delloosiwaat leen fii ci biir lépp loolu nag nee nañ mu ngi tukkee ci benn accord goo xam ne ni waa Espagne signé woon nañ la ko yéene kaay gi ressource ak xëy fësale yéene kaay geneen ci xëtam enquête euh, waaw gi di euh, ab ab ab gàllan mm. koo xam ne dafa suux ma nga suuxee nag daanaka ci waxu Saint-Louis fële waaxu waxu Gànjul yi nee na daal am na si nag ñoo xam ne jot nañ cee mucc ñoom nag ña nga bàyyi ko fële ci gànjul euh, yéen kaay gi nag fu mu toll nii am na ci ab lanket goo xam ne ubbi nañ ko si ngir xam euh, li mu doomu aadama yi jot a ñàkk seen bakkan noonu la ko yéen kaay gi di lanket xëy fësale yéen kaay yi geneen stade stade yéen kaay dafa xëyee dellusiwaat ci CAN 2024 bi ñuy dëgmal waxi tamit taxawaay Aliou Cissé euh, ak ci wàllu tànneefam yéen kaay gi ne neexul ba neexul waaye Aliou Cissé ma ngi jëm ci yoon ci ci ma ngi jël yoon woo xam ne na xaw metti lool si moom ndax tànneef bi doon lu yomb ci moom noonu la ko yéenekaay gi di stade xëyee fësal yéenekaay bi di suñu làmb yéenekaay gi di suñu làmb dafa xëyee samp laaj bëgg a xam boo xam physique athlétique athlétique la boole ko aussi ku xarañ la ci wàllu làmb yéenekaay gi daal xëy samp a xam daal Modou Lo ànd la moo di sa këram mais ak lu Lo moo xam dafay gérer carrière am te mbër mu ko gis ba xeeb ko yaa ngi ci erreur ndax Modou Lo